assainissement ah waaw mi ngi dugaat ci oh, mbaalu ndox mu nugg ah mbaa nuggul yaakaar naa nuggul de ah yaakaar naa ko yaakaar naa ko yaakaar naa ko mi door ci kon baax na sekk manqué na fi Fatim oh, manqué na fi waaye heure bii la daan way la ilaha illallah yàlla na ko yàlla yërëm waaye tey eh, eh, eh, nee naa ndox mu tàng la nuggul dafa tàng ndox mi tàng la fan Mathier Mathier maa ngi lay ziar noo gisee bëre xale xale yi dañ ñemeñante lii bu dakkul léegi dara feeñ. nee na lii léegi dara feeñ. alala ah ah daan na kankan daan na ko. daan na kankan daan na ko. Mor kankan.